Medio bypass, llamar. Por un día, yo

Seydina Mohamed xëy na man bu ma demee bay bëriwaat yàlla jëm moo tax ñu seen baax dama sori woon trop trop trop trop combat bii nii maa ngi dem si trop seen baax maa ngi dem si combat bii nii trop seen baax bi barki Seydina Mohamed maa ngi dem trop trop trop barki alquran di ko ñaanal mu jëm na mu dellu si waat léegi balaa combat bi yàlla yéen a manqué na ma trop trop trop ma ku doon sonn sama bët parce que Seydina Mohamed ca bàgg ku doon gën a bëgg man sama laabu man moom ku doon gën a bëgg parce que Seydina Mohamed mbër dëkk ci commune bu Diamaguène Sicap Mbao booy lim boo limee benn mbër di ci teg see Baye Fall wala boo mooy ko di ko jiital ñu jékki-jékki see Baye Fall ngeen déggal ko keroog ak seen juróom ba nga gis ne boo di kaa mën a ci ay tolof rek papa bu doon may bàyyi sama sago ba sama làmb bi. dëgg la mais xam nga nekk góor sax loolu mën mën a soriwaale li nga dugg góor làmb bi dafa métti mais yàlla baax ay jëri laa xam góor nit doonu ma doon jàmbaar mu bëri mais bu doon mën a sama ak sa sa sa parce que nit pexe rek lay def yàlla mooy dogal mais man waruma kenn lu ñaaw waruma kenn lu ñaaw amaana lépp lu ma dal sama àll bi naan ma sama xol la mais jiwuma kenn lu ñaaw parce que séeri naa waxal man man man man man rek parce que séeri naa waxal biir jëw maa ma def ñii nii xam nañ lu may wax bu baax nekkul ma la biir jëw maa duma la parce que séeri naa waxal billaahi ñu dégg ay rajo fu nekk naan ko waroo koo jël waroo koo jël mais mu daal di def lépp daal di jël li nga xam ne moo di koy jàmbaar. wala déggoo ma la man man man de man kese kese man ci dégg naa góor ñi laaj wala laaj góor ñi li may wax nii nii boo gisee xër bii ñuy demee ci man ak sonn bii nii yow. taxaw bu ma leen tardeel ci làmb muy mbapat ba nii benn yoon làmb bu daaw ndam bu nekk ci làmb parce que tey dinaaw am moo tax ñu mel nii bu ma tey dinaaw mais bu demaatee incha allah rabbi la fay mais je Thank you.

du baabaal buy dund lu yomb baabaal buy dund lu yomb rek du baabaal te buy baax naa ko def bi teel teel lamb ji sama lamb la ma du lamb kenn rek parce que tey naa ko lamb ji sama lamb la ñu profité rek lamb ji tey ginnaaw ma la nuyu gis nañu si lamb am nga jàppale loolu ñun ñu gis la waaye yow yaa ko mën a leeral gis nañu mafia baa ngi si ginnaaw gis nañu yow am nga ginnaaw bu baax macha allah mais G Baye Fall dafa am ñu bëri ñuy wax ci làmb ni say làmb soo duggsee ci làmb da ngay bàq mu neex da ngay indi ay nit mais da ngay dem ba ci biir combat li ngay bëri ci biir làmb jeex da ngay defee ne maanaam da ngay dem da ngay bàyyi loolu manque de concentration wala yàkkamtee libéré wala yàkkamtee nit wala lan la loolu mooy loolu lu ma la wax rek dégg nga man dama jaan supportam pare dama la supportam su ma la numéro 2 xam nga arbitre sifflé situation yi ngay nekk moment boobu noonu fu nga toll mu ngi méttee doo bëgg doon sa adversaire di weer bu gaaw am foofu laay jëlee problème mais est-ce que xam wàllu jàpp la tamit sa lamb yi di ñëw est-ce que xam nga da ngaa war a concentré noonu lay demee incha allah rabbi yaa ngi ci bàyyi xel bu baax a baax nee naa lamb ji nii sama làmb la man combat kenn ñu dama leen amaleen bor mu leen nuyoo di la ziar jox sa wàccuwaay nga am adversaire bi nga xam ne dafa judd fekk ngembale ci biir kër gi ndax ku xam say jàmbaar dañ ne doom la ci Modou Lo rakk la ci Petit Lo nga am boobu est yaa ngi préparé bu jour ba wàccaay bi en cent pour cent moom li ko nar indi dara dara ko parcelle indi ko ak tëngéej mu mu diis indi ko deful si yow dara ay garde de ci tamba mo lo ba ko may tur beur yeb kenn la bu sa ñom ñoo ram mo lo tax mo lo mais xam jambar mo lo beur passe la ñoo ñep ram ba ben ben ci sama ya, lu fa am man ma koy dem li sama lamb la lamb di kale mom te gàtt gàtt ñi gën a bëri ñëpp leen yóbbu top 5. boobaa moom loolu ba léegi fan nga teg loolu ci xeex ci bëre ci lan. déggoo lu ma la biir maa ngi mën man kafe barrière barrière gaawaan ñu bàyyi ma fii biir Diop maa ngi moom. maa ngi si si si si si interrogé. li may wax di yàgg ànd ak man li ma xam-xam la moom. barrière gaawaan yi ñu yóbbuwaat. poids bi nga jël. tey jàmbaar. man ku ma xam-xam la combat bii nii. lu ma si liggéey bu ma ko liggéey waaw.

dem di fan ji di ñëw di fan ji di dem aru di ñëw eh ini ma jembere la dëkk def ma jiddo ni la jiddo fi la yoro jembere billahi jambal Não muda nada. Só para continuar, morrer. loolu yëpp dara looloo ko may tur doomu Modou Lo loolu rek ko may tur mais dara ay njëmba ko ñu loolu yëpp turam loolu te dara bu ma bëre ñu baax xel yoon la gaal lañ dëgg man bu ma bëre ma jiital ay ma tam sama njàmbaar laay def ak dara yàlla lu may bëre mais combat bi dina jël sa temps ndax bi bay fa boo xoolee ak lu waa li tax ñu ñàkk ñu ñu lamb ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu bay fay ñëw mais combat bi dama ne sa combat bëriloo kenn boo ci bëri la nga yàq ko ndam est-ce que combat ñëw pare nga pour taxaw boo gis sa buntu dem boo gis sa buntu taxaw ak yow moo gis ndax combat bi lépp loo war a ñàkk xam naa noonu la demee lépp loo gis jël sax combat bi laaj laajal force bi laajal gan gan gan la nga naan wàllu mobilisation wàllu mobilisation postoon. waaw naa mobilisation man mobilisation mooy booy na ñu gis man de man aw ma jàppale ñu bëri dañ ko tuddee ay borom alal la nekk dina ma aw ma jàppale parce que naa ko man booy na ñu la doon ko ci sama lekkal ñoom su ma naa la ci ma kenn xaw ma kenn xaw ma kenn man nii laa xam man nii laa xam man su ma demul entraînement heure boobu ñoo dama teg ma booy may dégg lu nekk ci ñoom la. mooy suñu papa. mais ñu man woo ma leen si ñoom. yàlla mooy boole moo boole booy yi. mais lu nekk nag da nga koy dégg si ñoom. ba tool buuma mu nekk boo ci xale mu nekk da nga koy dégg loolu da nga koy xaaj la ñoom. mais su ma demee ba dinaa ma déedéet yàlla ak ñoom a tax. kenn amul ku ma defal benn sërëm amul ku ma dimbali man nii laa xam. dama ne ñu defee ñaari kaw ñaari bëri. ñu mel ni ki nga xam mooy say jàmbaar ñu bay xaar. ñu mën a ko bëri bu ñu bëri. tey jàmbaar da nga ko takk ma wante ñaar tànk ci sama mbokk ñu ngi gis ne day bàyyi fa day bëree noonu ñoom ñaar seen kàttan bëree da nga jàpp ne daa am bëree baax kaaw di ci am mais baax yaay sooraay loolu déggoo lu ma la wax laa mujj amul laaj la illaa dinañ bëri ba avant def foofu nag kontaan ma ci alquran na taxaw dëggal boppam rek jàmbaar na ko benn waar kër boo xam ne benn am na ginnaaw ñaar am na jàpp ndax lan la ñu ko fàtte ñu naan bëri ñoom jàppale seen problème tey ngay bëri mbër bu am jàppale yoo xam ne jàppale bu dul ci seen problème. Suku ya kan. Menjauh rek. Jangan berpaling menjauh rek. Main baja udah bisa ya rek. Wow. Muy ci biir Baye Fall. Am na ay jàmm dañ ñu ne déedéet dañoo xeet ci moom Baye Fall yi ñoo leen ci seen mbër moo tax mu demee nii. Amaana mu mbër daa nangu ko dina ci biir benn nit wala ñaari nit. Tey bu ko Baye Fall tam ñu xeet ci moom lan nga wax. Wallaay mooy lu ma la wax rek. Billaay ñoom fuñ toll ci man la rek. ñu dañuy tag nekk ci moom ñu dañuy toog ci moom borom Saalum loolu yàlla baax na yàlla yàlla doon si borom. booy baaxul la waaw mooy booy rek. borom sareet yi ngay woo ñëpp waa Kora dama ko def sareet yi képp ku naan. Aliou Kora moom lañ si doon waaw. man Seydou Ndiaye moom su ko trafiqué. après daal daal dañuy toog daal dañuy toog. ñëw di toog rek ñaar ñaar ñëwal paas. baaxul kenn. waaw waaw waaw. amul arrêt day daw rek yéen ñi nga xam yi nga xam yéen nekk jàmm gën ci Gàmbaaw ba Jaksaaw di leen jàppale mbëru jàmm gën di leen jàppale mbëru jàmm gën ñi jàpp ñu ci lenn booy yi lañ am booy yi ñooy teg seen cent franc seen deux cent munoo leen ni boo leen ni politique ñu ñu ñëw bàyyi suñu lépp topp leen bu ñu amee bis suñu leen gis loolu dafa ñaaw fii ku fal ñu ñoo fal booy yi ñooy ñëw di la aar di a def lépp ba nga falu nga falu ba pare ñu am combat duñ la gis loolu la ñëw jàppale booy yi gisuñu kenn benn matériel lañu gis ak booy yi daal mooy ñoom abu Seck ñoom ñooy nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale di doole ak képp ku fi mën a nekk mbëru jaam gën yëpp bu ñu xewlee dañuy sonn parce que président mais xaalis Madial moo gën a moo gën a efficace xaalisu sàcc ñun ma la ñuy dundee booy cent francs yi la ñuy dundee tey tëbati baa ngi ñëw mais ku nekk daa defa sa tiset ñu jàmm gën lañ am ñun bu ñu kenn xeebal jàmm gën ñun amuñu Pikine amuñu Thiaroye ñu dara jàmm gën kese lañ am